loolu Balla Gaye loolu mu def noonu bu dee mu may seetaan rafetul ci sa mbokk sa deret nga taxaw naan maa ko mais yaa ko war a def ok jërëjëf mbokk internet di am mbégte bu baax a baax encore contentement saa su ne ngeen ñuy topp ci li nga xam ne mooy suñuy information tey nag ku ne xam na ni showbiz la ñuy waxtaanee bu ñu waxee showbiz nga xam te mooy Balla Gaye daal di am tànk tuddee ko Aziz Ndiaye hmm, mu nekk xibaar boo xamante ni si bare bare rafetlu nañ ko waaye ki nga xamante ni mooy Sidi Diop euh, def fële nga xam ne mooy gradiate def ko guichet fermé Wally Seck ñëw fa mu nekk loo xamante ni bett nañu bare bare bare war na ci waxtaan nag Pascal dama leen daal di bàyyi rek nga duy mbokki internet di ñu daal di jàll ci waxtaan bi waaw maa ngi leen di siyaar di leen bëggee di am contentement ci euh, ñëw bi ngeen ñëw pour ñu waxtaane showbiz émission bi aussi mu ngi tudd showbiz donc euh, lépp lu soxal wàllu showbiz bi rek dinañ ci fas yéene wax kéem liñ ci xam di wane ne nag xam lépp taaju ñu fi di nuyu képp kuy seetaan site yi nga xam ni fi ñu toll nii ñooy lëmbi réew bi ñoo ngi leen di del dalal jàmm jaajëf. Mm-hmm. bi ñu koy njëkkee mooy ki nga xam ne mooy Balla Gaye daal dina am tout tànk tuddee ko xaritam. Mm-hmm. Abdoul Aziz Alla Ndiaye mu nekk lu Sénégalais yëpp rafetlu ban appréciation nga ci am. mais rafetlu xam lu tax ma rafetlu ko da ne xaritam tuddee ko xaritam. xarit mooy xarit mooy benn jëmm ñu xar ko muy ñaar ñaari parti yoo xam ne benn la muy ñaari juróom yi matul fukk xam nga ñaari juróom yi matul fukk mooy lan mooy jëkkër ak jabar bu ñu amee cinq doom ñu laaj jabar ji ñaata doom nga am mun ne leen cinq xam nga benn juróom taxaw na ñu laaj jëkkër ji ñaata doom nga am mu ne leen cinq beneen juróom taxaw na mu nekk ñaari juróom mais matul fukk loolu mooy xarit ci missaal donc koy xaritool dem ba tuddee ko doom loolu mooy wane ni kenn ku ne am na foo toll sa morom wala ki ko tuddee doom moom firndeel na tolluwaayam ci moom xaw ma nag ka ñu tuddee xëy na tamit ka ñu tuddee wane na loo xam ne moroom ma jaral na ko mu dem ba tuddee ko doom kon foofu relation bu sincère lañ fay jàngat jëf ju rafet lañ fay jàngat ndax loolu mooy àdduna dëgg la Balla Gaye euh, sport lay def euh, euh, kii di Aziz Ndiaye promoteur la opérateur économique la tu vois homme d'affaires la donc ñoom ñaar li ñuy dañuy liggéey kon seen liggéey dafa duggalante ñu dem ba yàlla boole leen ñu nekk ay xarit dem ba xëy na jikko Aziz Ndiaye doy Balla Gaye ak ni mu àndeek moom mu tuddee ko doom loolu lu mana a la tamit lu rafet maanaam manam ni ko Sénégal di rafete ñun non lañ koy lo c'est tout. mais est-ce que dina yombal tamit mu teugal ko lamb comme ku ne xam na ni relation bi ñu am tay mhm. est-ce que du dem ba loolu tay bu ko tëggalatee làmb ñu bëri xam ni ba say fi la far ba lu ci bari bari mën na ko mën na ko yakal ci côté sport. mais est-ce que musu ko wax azin Ndiaye est-ce que musul wax loolu si je me rappelle bien que ni mom mu teug ak mu ñàkk teug tëgg Balla Gaye moy mbeureum te loolu sax jarul mu koy wax. loolu Sénégal yëpp xam nañ ko ni ni mu mel ak Balla Gaye donc moom amul lum mu ci làkk-làkkal léegi nag business business dafa dem ba tollu gisoo wàllu politique da ngay gis sax campagne jot nga gis euh, euh, euh, président bi yabal ay ay ay ay ay kii comment dirais-je ñu nga gis ci biir parti bi am ñu génn présent doon candidat yeneen parti génn doon candidat maanaam mun na yëpp nag day day day day jóge ci ci benn parti bi ngir maanaam bu ñu demee deuxième tour mën a boole ñoom ñëpp rejoindre pour pour def benn bopp comprendre nga donc business la ñoom bu dee maanaam seen ànd liggéey da leen di njariñ mais dañ koy def loolu maanaam amul loi dàq ko l'islam dàq ko diine dàq ko maanaam lu lu mën a nekk la l'essentiel mooy xaritoo bi dañuy xaritoo mais bu ñuy business dañuy ànd business. jàpp nga ne yàqul dara ci làmb. déedéet déedéet Aziz Ndiaye af Aziz Ndiaye nëbbatuwul Aziz Ndiaye bu tëggalee ba Balla Gaye làmb ku bëreeg Balla Gaye ba ngay bëreeg moom xam nga ni Aziz Ndiaye mii Balla Gaye la faral. tëggal nit aussi tamit ba noppi ñaan ko mu daanal aussi tamit so loolu aussi tamit. mais. de ñemee dina dinañ ñeme aussi mu tëggal leen. mais mais euh, Balla Gaye combat yi mujjee bëre yi Aziz Ndiaye tëgg ah, wala ñu ko ci ñu koy jiiñ ni moo ko tëgg non am na sax yu mu tëgg defe naa bii mujj bi gars yi ñu ngi doon wax yooyu mais moom maanaam xam nga tamit Sénégal hmm, il faut tamit ñu ñeme dëgg di ko wax ragal péete day xañ a wërsëg Aziz Ndiaye nëbbul àndam ak Balla Gaye Balla Gaye nëbbul àndam ak Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye nag bu nekkee promoteur gis ni bu tëggalee Balla gay da ciy am xaalis am ci njariñ ah ku mën a tëggal làmb ak Balla gay Balla gay lay faral loolu un plus un la égal deux ñoom lakkuñ ko léegi nag yow mii adversaire bi boo nangoo nag bëreel ci loolu mais amatoo looy wax surtout mbër mi mbër mi nga xam ne moom la concerné hmm? bu nangoo bëreeg Balla gay làmb joo xam ne Aziz Ndiaye ko tëgg mais sa tamit foofu amatul luñ fay wax quoi oui man noonu laa ko gisee. Mm-hmm. voilà mais gis nañ aussi tamit ki nga xam ne mooy Sa Thiès rakam. Mm-hmm. naa coow li nga xam te ne amoon na. parce que mm-hmm. Balla Gaye defoon na benn sorti xam le ni moom oto bi moom moo ko moom. ba ni moom moo ko yor. Sa Thiès génn mu aussi tamit répliqué daal di tontu. dañuy gis mu def geste bu rafet ah. ñëw teel a ñëw ci tudd bi. ñëw Sa Thiès. loolu warul bett kenn xam nga ñaar ñu bokk ndey ak baay. Euh, mun nañ xuloo bay rayante.

rafetul rafetul nit nag mën naa toll foo xam ne mën naa juum waaye bu demee ba toogaat na nangu ni dafa juum loolu Balla Gaye loolu mu def noonu bu dee mu may seetaan rafetul ci sa mbokk sa deret nga taxaw naan maa ko mais yaa ko war a def loo war a def kay boo ko defee mais lu loo looy looy bu problème amee mais looy génnaat di wax lan mo ci yoonu nit ñi ku ci dugg it ya ci dess ah mais ñom ndax yag yag dinañ ci bo buñu ñu génnee wax ci penc mi. parce <laughs> que nit ñi aussi duñ ci seen point bi wax. parce que est-ce que tamit ñoom bu sen waxee seen seen xalaat ci penc mi. waaw est-ce que tamit nit ñi amuñu sen droit ñom aussi. génn mom la moom non bañu lool c'est c'est normal. c'est normal ñom buñ démé ba wër sen bop kay nit ñi wax ci. loolu mom mom ñom ñoko def ñoo wër sen bop nit ñi wax ci parce que ay célébrité man bu doon man mi nga xamni kenn xamuma suma génné na sama mag li ak lii ak kenn du wax mais ñom ay célébrité lañ c'est normal nit ñi wax ci té mënuñ ko bañ nit nak bo démé ba neubelo sa bop neubelo sa mbokk wax mais ku wax waro ko bañ nit ñi dañuy wax kay lolu lolu dañuy wax Salim oh, ñi wax alors tay mais lan nga léni di tay tey bi Sa Thiès amé grandeur ñeu assister tudum waaw hmm. ah, donc ñu tudde ko Abdou Aziz Ala alors tay ban conseil nga leni jox tay ñom ñaar tay ni nga xam ne tay war nañ ko mëna doxé parce que rafet na. ñu xam ni conseil bi sama bop la ci jital ak yeen di di di ma filmé yow Cheikh mbake ak Salim conseil bi moy lenn ko bokal sa dret ngeen bok waxuma la bok mais xarit rek for gi mu for sàkkatuma ko bokal dret loo ko manti defal sa bop nga ko defal te jëf jëf. Serigne Saliou ne Serigne Saliou nee na jëf ju ñu nangu li koy mandarga day bokk ci nga fàtte jëf ji mais mënoo jëfal nit ba noppi même bu dee Samba Sulabar nga jëfal ko ba noppi wëlbatiku di ko wax loolu amul sance mhm. léegi nag comme loolu am na weesu na. juboo nañ kii ñëw na ci ngénteem mais da jàmm ji wéy te bu ñu amatee problème nañ ko lijjanti seen biir nañ ko lijjanti seen biir te bañ a weer seen bopp ci ci ci média bi loolu rek laa ciy wax conseil ah, boobu laa ciy joxe mooy mooy mooy. soxna ci Abdou Aji Alé Ndiaye di Aïcha Rasoul mhm. gannaaw bi ñu ko tuddee eh, borom këram ñoo na def ay teranga mhm. nan nga gisee taxawaay bi nga xam te ne taxawee na ko diggante Balla Gaye mais c'est le Sénégal mhm. ngénte boo dem kuñ tuddee doom da ngay def teranga njëkke da ngay def teranga waaw même yow mi xewle sax hmm? dangay dangay say say say say say xarit ak say mbokk say àndandoo dañuy ñëw di la ta loolu moom c'est le Sénégal loolu moom jëf ju rafet la ñëpp a koy def ku xew la da nga koy def c'est ça